wala ci léeg-léeg ay xew-xew yu xew danañuy faral di gis eh, ay mbokk di partager ay eh, yëf yoo xam ni yii léeg-léeg du am cëslaay ci diine su ma nee amul cëslaay mooy doo ko gis ci alquranul karim doo ko gis ci waxu ki yàlla yónnee woon ci ñun doo ko dégg fenn foo xam ni fii daal delluwaay ba dafay doon delluwaay bu dëgër te loolu nag warul doon comportement jullit rido du wéeruwaay boo ci wéeroo soo moytuwul jël mën na laa dal kuy wéeru da wéeru ci suñu boroom tabaraka wa moom mi nga xam ni moo boole sax fi dàq am kàttan am sañ-sañ am mën-mën ak yeneeni melokaan yoo xam ne yii mën na laa aar ci tolof-tolofi àddina ak njàqare alaaxira kon dina jaadu nag ñuy laaj mbokk yi kañ la ñuy bëgg kañ la ñuy tàmbalee bàyyi lu yomb ndax loolu nga gis nag muy dal ñi lépp nag weesuwul bëgg lu yomb bëgg lu yomb ba mu ëpp ba mu jaadoo di ndax dooy dégg lii ku ko wax mucc lii ku ko def mucc ku xool lii doo dee ci at mi yooyu façon jullit du ko wax jullit du ko jëf jullit du ko gëm soo xoolee di nga gis ci internet bi ay nit ñuy rëbb deux mille vingt wala iyaasu billah jooju wax ju ñaaw jooju wax ju jubadi jooju wax ju ànd ak réer ak ñàkk xam suñu boroom tabaraka wa taala deux mille vingt at la mook at yépp ñoo yem fa yàlla nag te nag am na at yu ko gënoon a ñaaw fuuf kon mel na na moom dafa waroon dal xelu doomu aadama yi ndax xam day nit ñi buñ doon xool nattukaay yi day mel na deux mille dix moo gënoon a metti sax ñenn ci ñenn ñi ci ñu xam moo gënoon a metti gën a tar deux mille vingt te xamuñu lan la deux mille vingt et un di indi kon yow mi yàkkam ci deux mille vingt dem deux mille vingt et ñëw xamoo lu xew xamuloo lu xew mbokk yi dafa am kàddu ak jëf ak wax yoo xam ni yii sori na moos nag tawxiid te lu sori tawxiid mën ngaa waat ne dugg na ci shirk bokkaale ndax dégg naa ci jàkka ju soriwul sama kër koo xam ni kii ma nga naan aouzu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim buy nodd barki borom Touba loolu waa jàkka ja waruñu ko woon a bàyyi muy def loolu wala boog nga ne ñoom ñëpp dañoo yem ak moom wala muy benn waa ju njëgur joo xam ne ji ku ko tudd ay di buuru sarax nga xam ne day daal di rajaxe jumaa ja wala jàkk ja yii façon du image yu rafet ci lislaam kii muy tudd turoom moom ku ne xam na ne set na ca loola moom ndax in wa in xadaal muridu dëhran yatbau li ruxsati sharci fala yantafiu loolu la wax kon mbokk yi ki nga xam ni moom la yàlla yónni woon ci ñun tabaraka wa taala lum ñu wax mooy kuy wéeru kuy wàkkirlu wàkkirlul ci yàlla alquran lan la wax xasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir loolu la jullit war a wax waaye diw mi ma yaakaar ak diw mi ma wolook diw mi ma dénk sama bopp ak yooyu yépp ay waxi caaxaan rekk la du leneen ndax nag fii koo fi yaakaar su yaakaarul yàlla yaag moom ànd da ngeen dugg ci ruq boo xam ne bii xamoo bu mu doon te bu yaakaaree yàlla xamoo moom lu yàlla namm ci moom suñu boroom rekk moo xam li mu namm ci jaam ñi ñun dañuy rafet njort am yaakaar bu rafet waaye njort boobu na fa yem na fa yem nga jël nag jaam bi teg ko ci palaasub jaam te jël boroom bi nga xam ni moo bind ay jaamam moom nga jox ko place waaye jël place boo xam ne bii yàlla tabaraka wa taala rek moo ko moom munoo muusa ka waane ba yëkkati darajey nit ak ku mu mën a doon xattaa nag muy ab yonent munoo yëkkati darajaam ba kooka di am darajey suñu borom tabaraka wa taala bu dee nit ordinaire na man dong rek munoo yëkkati darajaam ba mu àgg ci darajey yonent yi alayhim salaatu wasalaam bu ko defee bokk yi yooyu ñu gën di ko moytu di partager yoo xam ne yi amul benn njëriñ te nag sax ab jullit euh, buñ lay wax masalan defal bii lim ci salaatu ala nabi wala defal bii lim ci astaghfirullah dafa am lu ko war a jiitu foo am lu ko war a jiitu mooy lan jub ak jubal munoo yendu ci lu neexul suñu boroom munoo yendu ci di lor say dëkkandoo munoo yendu ci di tooñ bu ngoonee nga naan damay def ay istixfaar ak i salaatu ala nabi munoo yendu ci sàggane ay farata ba noppi boole ca naan damay jaamu suñu borom déedéet yàlla wax na ko ci xadiisu abi hurayra bu bu siiw booba ab jaam daal amul jenn jëf ju muy jëf mën caa jéem a jegelu jege jël jege jegelu boroomam lu dul li yàlla farataal ci moom muy julli woor zakat dem màkka ak euh, koor yooyu la suñu boroom wax ne ci lees ab jaam di def ay jëfam ba mu noppi loola nag boo ci góor góorgóorloo sa kemtalaay kàttan ba nga xam ni loola kat def nga ca leneen loo doon seetaat di ko coobarewoo nga coobare ko xëy na pour yokk say mbaax ak say yiw waaye li feeg loolu matul bul sonn bu la kenn nax loola du bari njëriñ ci yow asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.